ginnaaw bi mu dalowé ambulance ci loxoy ki nga xamante mom modi président de la république Macky Sall Elage Oumar Sow doon jébbale nak caabi yi di ko jox ñi nga xamante ñom ñoo di autorité sanitaire yi nekké ci gox bobulé mu am nak ci téwayu ki nga xamante mom modi chef de district bu Richard Toll kooku nga xamante mom modi docteur Latir Diouf ci ay kàddoom nak mom meeru commune bu Jama di délu ci siwaat rek ci mir moomee naka la ca joté li may wax rek mooy maa ngi sant yàlla bu njëkk di yëgal Sénégal tournée paysan bi mu def ci région de Saint-Louis département de Dagana wala région de région de Fleuve laal na ñëpp képp ku mbër gis nga ci sa bopp ndax man bu may dugg fii dafa daje man déey ma ni am na ay ambulance yu indi naa ko fekk kas-kas mu nekk fekka fekk kas-kas ak samay moroomu maire mu jël caabi bi jox ñu oto yu bees sax xam ne musul daw mu ne ma yéen a ko moom yóbbu leen ko population bi man maa leen ko jox tey nag. médecin chef jogi Richard Toll ànd ak kàngooram yëpp képp xam yaangi nek ci médecine bi ñi ci département bi indi len ñu ànd ak man fi pour ma jël ko tekku ci loxom mo tekku ci tokku population bi be par mo defal ñu ci ñaan xam na sa mbokk séeréer lu mu ñaanal yalla dama koy defal ndax nee ma yalla nga fi yag te nee na ma encore kep ku mu xam am ambulance bi jël nak yobbu hôpital yalla na delu ci amin waaw na fi na fi yag mu jëriñ ñu ba yalla bu mu bari liggéey ban ñoy gërëm président rek wax ni yalla nak yalla may wër lépp loolu initiative am yal na ko yàlla jox ñu koy ñaanal Sénégal yëpp di ko wax ni mu ngi continuer di jàppale population rurale bi comme lii Dakar war am te loolu la ñu bëggoon mosuñu ko am ñu koy gërëm di ko sant di gërëm nag di wax nag population Jama mairie ba Jama seen maire yàlla def na tey am ngeen six postes de santé bu nekk am na tey ambulance. mais Jama comme nag man fi laa dëkk te nit yi bu ñu soxlee sorewuma moo taxul mu mujj. tey nag président indi na ambulance jox leen ko mais ba tey maa ngi fii man ak moyen bi ma amoon ak ambulance bi lu ñu am def ko ci. ci wàllu yorinu ambulance boobu ak ni nga xamante ne noonee lañ ko war a sàmmee maire bu commune bu Diama di wax rek ni loxoom du ci dañ benn yoon ba tax na nag muy xamle rek taxawaay gi nga xamante ni doon na ko ci am moom la fas yéene wéyal. waa médecin tey bu mu xëy see dafa wax ku nekk lan mooy sa rôle ci biir loolu. li ma ci population fekk nañu fekk nañu ko ci chef de village fekk nañu ko ndax chef de village bi nga xam ne mooy chef de village de Diama xam ne chef de village ci département bi yëpp moom moom lañ jiital fekk na wax boobu jeunesse bi fekk na ko ñëpp fekk nañu ko lu lu ma wax moom médecin bi moo ko wax mu na kan lay demee ni mooy demee noonu lay demee poste santé bi ñoo yor ñoo yor gestion bi mais bu ñu jaaxlee si man la ñuy ñëw te man pare naa lépp lu ñu jaaxle bi def sama loxo muy santé muy ci leneen ba tey nag ci ay kaddoom muy dellu siwaat rek di xamle taxawaay wi nga xamante ne doon nañ ko am ci poste de santé yi na nag li nga xamante ni moom moo di dotation yi nga xamante ni moom lañu leen war a jox dañ koy gën a yokk waaye nag duñ ci dellu ginnaaw benn yoon. waaw li ñu defoon ci quatre millions ci bu deux mille vingt rek la ñu defoon ci wala ñu wala ñu def ko vingt deux moo ëpp tuuti ñoo ngi ci daal ñun bu ñuy dew dootuñ taxaw ndax président bi mu jusque bu dem bu may dew nit ñi dañuy toppatoo mu jot leen. même du ma waaxu ci point ñu ngi ko gis waaxu noonu la ñuy waaxu ca weneen wàllu wa nag docteur Latir Diouf moom di lu mbir mi di xamle rek ni dafay ñëw rek ngir woyefal leen ci jafe-jafe yi nga xamante ne doon nañ ko am ci liggéey bi le waaw dañuy sant yàlla parce que bii mooy ñeenteelu ambulance bu ñu recevoir si district sanitaire bi nga xam ne président moo ñu ko jox euh, dans le cadre piment donc je pense que dañu am sentiment de soulagement parce que population yi xëy na jafe woon na trop bu ñu leen doon da ngay obligé di wut ay ay oto mais légui yalla andina li donc dañ ci sante yalla di ñaanal président de la république ñaanal également monsieur le maire bi nga xam def na ci ay démarches def na ci djégo yu muccu ayib ba nga xamante ne dëkkam am ambulance wax nako ko dafa bayyi won lepp ñi jox yenen poste yi ba bayyi mu bayyi fi nga xam fa la dekk mais tay yalla may nako sens bo boo xamante ambulance bu bes tàq la am bo xam valeur 42 millions je pense que lolu dañ ci sante yalla di ñaan nak population yi tamit ñu xam ambulance ñom ñoko mom ñu def ko sen momel ba nga xamante ne ambulance bi dundam dina mëna gudd trop te dund pour mu gudd nag mooy il faut entretien il faut accompagnement il faut lépp monsieur le maire wax na ko donc dana gën a dimbale poste de santé bi pour mun leen accompagner mais poste de santé bi aussi il faut mu dimbale boppam. dimbale boppam mooy comité yi nga xam ne ñoo représente population yi ñu am si taxawaay bu mucc ayib ak ICP bi nga xam ne xam naa ne taxawaayam rafet na si si poste bi ñu gën a góorgóorlu pour que ambulance vraiment bu ñu fi ñëwaat fekk ay at ñu gis ne ambulance bi dafa desaat bees ba léegi. donc je pense que lii daal dana soulager population yi surtout jigéenu wërul yi nga xam ne dañ leen di rawale donc je pense que suñ ko téye nu ñu ko wara a bu soobee yalla inshallah allah. mu ñëwee baax na parce que normalement poste de santé bu nekk war nga am ambulance. parce que bu nekkul dara sax en dehors Covid bi parce que Covid bi dañu am jafé jafé parce que boo amone benn cas malade da ngay obligé soit nga mobiliser ambulance district mu ñëw jël ci wala benen ambulance. donc je pense que da fay nekk li nga xamné ne fay gëna a suñu di suñu district bi en matière de logistique. et je pense que boy xol légui district bi poste de santé yu bari am nañ ambulance am nak nag ñoo xam c'est pas adapté mi ki ambulance adapté la parce que Land Cruiser la moo gën a atoti zone bi zone bo xamanteni zone bu xawa a enclavé la par rapport au district mais ambulance bi daf na ñëw pour soulager population yi donc Covid bi wàññeeku na c'est vrai que amatul sax dank dans le district parce que ñaari weer ngi ni enregistré wuñ ka mais nam taxul tamit ñu bàyyi suñu loxo donc nañ gëna a góorgóorlu fagaru rek pour xex feebar bi. lolé sax tax muy gëna ñaax askan wi ci taxaway wi nga xamanteni war nañ ko am jamono bu ne jëm ci walu wér-gu-yaram. nañu gën a gën a góorgóorlu rek xam ne am na dispensaire bu fi nekk boo xam ne pour population yi la képp ku am lu la metti mën nga ñëw foofu ñu jël la en charge parce que loolu moo tax tam ñu placé poste de santé bi au niveau de Diama donc je pense que zone axe frontalier bi yëpp am na ay poste am na ay poste de santé am na ambulance nag ambulance bi tamit ñu xam ne tamit c'est pour l'évacuation sanitaire nañ ci dimbale population yi suñ sañoon ku ñuy évacuer doo dërëm doo ko génnee et pour ce faire maintenant il faut ngeen ay partenaires yo xamné dañ la mën a aussi pour carburant beeg yoy parce que carburant ambulance euh, euh ndox duko dawal carburant moo koy dawal donc ñu gëna a le maire gis naa engagement parce que loolu la wone et je sais que sama sama sama jaamu Haalpulaar la dina gëna duggal loxam ci baaxa baax ci ambulance bi ñoo ngi koy ñaanal yalla de ñaanal yalla population yépp ñaan yalla poste de santé bi comité yeeg ñu fi nek yépp vraiment yalla ñu defal ndam ba nga xamantene évacuation yi mu gën a wala ku ñu fi évacué itam boo demee nga ñëwaat loolu la ñaan ci barke Seydina mohammed